ñu ngi leen di nuyu mbokk yi di leen ziar di leen ñaanal jàmm ñi ngi kon fi nga xamante ne moom mooy Fass Mbao ku ne xam ne keroog euh, dafa am tiis xam ne dafa dal si euh, convoi bi nga xamante ne kon moom moo doon topp Liss Ndiago ci arène national euh, lool nag yaakaar naa ne xibaar bi tey tey tey lañ ko jot waral ñu sol suñu daal ñëw seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille bi nga xamante ne ñoom la mbir mi dal seen kaw dañ leen di bàyyi ñu nuyoo su ko defee ñu sekk ak ñoom waxtaan mam bo ñu ngi leen nuyu di la masawu di la jaale ki nga xam ne moo fi bàyyeekoo mënuma wax wallaay mënuma wax tàggu naa ma daal ci tuub rek laa ko gëj gis loolu doom mais ba muy génn fii fan la la waxoon ne foofu lay dem. wala maa ngi dem maa ngi génn ma tàggu dama ko bàyyi dama tàggu rek dem. dafa tàggu rek dem ngeen yëgee mbir mi. ci guddi sama doom bi muy woote téléphone. muy day laaj doomam ma jege benn police mu ne ko sa doom dafa am soog loolu lañ ci am man tamit waxuma dara. waxuñu leen mbir mi naka la demee choc bi nan la amee wala dara. wala lañ ci am loolu rek de. ñu woo leen ne dafa dafa ñàkk bakkanam waxuñu ma loolu waxuñu ma loolu. mais moom ban ban genre nit la woon yaay. armignon lay liggéey. ah armé. Ah, lay liggéey. Hmm. da doon daal. ak ki nga xamante ne euh, moom mooy yaayu ki nga xamante ne moom moo génn àdduna si convoi bi dañ koy bàyyi moom itam euh, mu wax ñu rek euh, naka la mbir demee yaay booy ñu ngi lay nuyu di la masaw bu baax a baax. maa ngi lay nuyu dafa yeesu ba teel dem sang xaram ma yaay man de ko bul dem stade dégg mu ne ma waa du na ànd na ay dem stade. moom demee instant ñu toog toog toog toog ba 20 heures gisuma ko ma gunge sama rak sama rak yi dem ñibbi ma ñëw ba ci tëddi karo bi sama sama bi sama fi sama ween bi suuf ween bi rek res ma woo ko ma ne Moodu allo Moodu ma daji sapeur pompier mu ne ma déedéet du Moodu ku mu ne Moodu lan la si yow ma ne ko Moodu sama doom la. mu ne ma ah Moodu am na soog ma ne ko kon dee na accident la wala oto mu ne ma déedéet dafa dañ koo agressé. Euh, Sips léegi wax mu ne ma am na góor bu nekk foofu ma ne ko rek sama jaarum frère bi nangu téléphone bi rek ma yu ma yuuxu tali ba laa tali ba laa yuuxu ba fii mu jël téléphone bi ak jox ko sama frère bi sama frère bi ne ko nii lan la mu ne ko sa kii dafa am dañ koo agressé ñëwal léegi setewoo sama rakk yi ñëpp daw dem setewoo illaa toll depuis dimanche ba tey sama doom gisuma ko depuis dimanche ndekk yow dañ kaa dóor bal man xaw ma ne ñii wax naa ma dañ ko agressé ñii ne dañ ko dóor bal ay la xidal la gisuma sama doom dem naa hôpital ba ñëw gisuma ko bi nee na bi ma ñibbisi sapeur pompier loolu la wax nee dañ ko agressé te nañ bal dañ ko dóor ba tey jotuma sama doom gisuma ko man mii si yaayam ba tey gisuma naa ba hôpital ma dugg may bu max xam ne mën naa génn. ndax portable baa ngi nii ku nekkoon agressé dañuy jël téléphone am bi jëluñu téléphone. mais mais nit la woon ba pare. sama doom doom bu baax musuma jooyloo musuma jooyloo liggéey dañ ko xamee. liggéey rek ak jàpp njaamu yàlla jàng dafa jàng alxuraan ismu la may wax bàjjanam yëpp ñu may dégg ay laxi lalla mosul ànd ak ku moom xolam day sot fu mu gis nit di bëre dafa bëgg nit kuy bëre dafa bëgg liir si njaam ay laxi lalla amoon na amoon na yaay habitude di dem stade lu bëri. mosul dem bii la dem stade moom nee naa la tey la dem stade xanaa daa rep la dem Espagne musul dem Espagne musu ko dem foofu moom liggéey xol gis nga affaire bi euh, daa war daa waroon dem euh, dafa waroon dem Mauritanie dem eggal liggéey bi moom liggéey macha allah day liggéey moom moo liggéey sàmbal pompier bi nekk kees dañ kaa sànq rek ay la ay la moom rek laa am di doomu ma bu muy génn jënd na code bii fi code portable mosuma ko xam man code bi mosuma ko xam bind na ko ci kaw def ci turam am da doon tàggu dem fu mu romb ni tooñ sunu dëkkandoo bi mu ni ko kaay ma may la ndox mu sedd nga naan mu génne si guttu frigo bi jox ko xale bi xale bi man naanu kii baax na mu ni naanal rek jox ko mu naan mu dem boobu da doon tàggu nit xamante ne moom moo wuy ji boromam di di di di wuyoo si turu Mouhamed euh, Mouhamed nag euh, moom la ñu wax ne que moom mooy ànd ak papa 24 heures sur 24 wala réem la xaritam la moitié wam la dañ koy bàyyi mu ne moom itam ñu sekk ak moom quelques questions ñu ngi lay nuyu. maa leen fay maa leen ki nga xamante ne sa xarit boobi sama sama lépp la boobi sama rakk la sama jarbaat la sama xarit la boobu yaayam sama mag la yaayam boobu ñooy fanaan ñooy def lépp xale bu ndaw boobu amul benn problème boobu dox ci caaxaan boobu xamul lu liggéey wàcc ñu jël doomu jàmbur sakaase ko zéro xale boo xamante ne day liggéey wàcc lu mu am jokk yaayam boobu maamam fanaan Mouhamed tey qu'est-ce que ça te fait sa xarit mu mu mu génn àdduna tey euh, ñu bëri ne dafa doon dem si si si dafa wax di teg ay kàddu yu ñaaw que ne si dafa doon agressé genre tey jii bu ko ñëpp xamee itam yow bokk nga si ñi nga xamante ne yow yaa ko gën a xam parce que yow la doon nekkal yow la doon yendool di fanaanoo ak yow. booy bi soo bëggee dégg-dégg booy bi xamul lu dul liggéey wàcc boobu bi du fréquentation bu bon suñu kër fii nii. bu ñu la ñu dañoo am heure boo xamante ne heure boobu ñëpp kenn génn booy bi xamul génn xamul caaxaan xamul dara boobu su xëyee wàcc des mu njëkk moo wàcc des fois ma njëkkoo wàcc su ñëwee ay 22 heures ñooy nekk si kër gi yaa ngi dégg boobu xamuñu ko si lu bon xamuñu ko si caan xamuñu ñaax fayda bu an am anandoo bu bon boobu liggéey la xam wàcc léegi bu gars yi xëyee dimanche bi dimanche a moom dañoo teel a yeew man dimanche daal ma si teel a yeew dama teel a yeew jour boobu nag xaw ma sax la moo tax ma teel a jóg mu ñëw fekk ma suuf ma toog mu ne ma ma fekk may ndékki mu ne ma lay def ma ko damay ndékki mu ne da ngay tàngal ndox bu bëri mën a yow ñu ndékki ma dem tàngal ndox ma ne ma ñu ndékki ma yónnee ko géej ndax dama sanga ma sama xar yi mu dem sang xar yi ñëw mu ñëwee léegi mu fekk ma si kaw.